ginnaaw demam ga nga xam ne demoon na ko ci coobare boppam ñu foogoon ni sax dafa réer fu fecce diwaanu France taxoon média bi file ci Sénégal ku ne doon ci àddu boobaak léegi nag mu toll ci fukki weer moom Diary Sow daal di nay publier ab roman mel ni sax da ciy wax demam googee ndax ci livre ma bi nga xam ne daal bind na ko mu ngay wax ci ab xale bu jigéen boo xam ni dafa fàqoon rek ginnaaw ay critique di wuyoo ci kura ba mu demee daal ginnaaw ay ay bés ba nag moom Diary Sow nag mel ni dafa bëggoon rek def noo ne kura defoon bu ñu sukkandikoo ca na mbir ma demee woon ci la yëkkatee ay kàddu rek moom Diary daal di xam ne ne daal demam googee jëlee na ci expérience yu bari waaye demam googee ci coobare boppam la ndax moom meli ak kura bokkuñu benn yoon na ndax bu dee kura moomee ci alal la juddoo moom Diary saw yaram wute na loolu jamono ji nag moom Diary saw turam fësaat na lool ci këru taskatu xibaar yi gannaaw entretien ba nga xam ne rek ko ak waa AFP yëkkati fa woon ay kàddu ñu jàppee ko ñu lu tegginewul dara dina rek ce livre est une façon de vous dire je vous emmerde waaye moom daal li nga xamante ne loolu la si wax rek ne daal saagawul benn sénégalais waaye daf doon rek ñi nga xamante ne daal ñoo ko toppoon ci réseau sociaux yi doon ko ŋàññi yokk na ci daal ne ma virginité je la traîne comme un fardeau maanaam daal ndawam li nga xam ne téye na ko ba léegi mel na ni lu koy diisal moom jaari saw nag xam ne ne daal ni mu waxee ak ñi nga xamante ne daal noonu la ko sénégalais yi déggee dafa wuute loolu ndax lu mu bëggoon wax rek dina Sénégal dañu fonk lii di ndaw waaye doonul lu diis rek lu ñu wax a yenu